jërëjëf sëriñ Touba Xaadimu Rasuul salaatu wa salaam ala wa nabiyina wa mawlana muhammad sallallahu alayhi wa sallam rabbi li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu sëriñ Cheikh mu sëriñ Abdou Khadre Mbacké maa ngi lay indi nuyoo son excellence le président la république Macky Sall pour nga teg nuyoo boobu ci loxo suñu yaakaar toogal fii Cheikh Ahmad Bamba Khadimu Rasool mu sëñ Muntaxa mu sëñ Basiru Mbàkke bu Cheikh Ahmad Bamba Khadimu Rasool di la jox sa nuyoo bopp yow mii nga xam ne yaay xalifa sëñ Abdou Khadre Mbacké jox la itam nuyoo pour sa njaboot say rakk say àndandoo say taalibe mais également pour nga jottali itam waa Sénégal yépp sëñ Abdou Khadre bu Sëriñ Tuubaa Xadim Rasool fu ñu ko tuddee rekk xel yépp a nga jëm ci suñ borom tabaraka wa taala xel yaa nga jëm ci Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasool xel yaa nga jëm ci alxuraanu karim xel yaa ngi jëm ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam magam ju baax ja lim ko dénkoon fii ci tuubaa muy jumaa ji muy imaama yëkkati na jëmmal ci islaam ci diine islaam nda diine inna al islaam jëmmal na ko ba kenn ku ne boo nekkee jullit bu ñu tëjee tuddee sëñ Abdou Khadr sa xel day dellu ci yàlla sa xel nekk ci dal lu ko waral suñ borom tabaaraka wa dafa tàggee Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ca jikkoom sa wayjur bu tedd bi suñuy wayjur suñu yaakaar sëñ Abdou Khadre Mbacké ah xolam day kenn mënatul wax après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak Cheikh Ahmad Bamba ngay wax leneen lu dul moom itam day royukaay la royukaay ci jikko ci taxawaay pour jubal doomu aadama moo tax bésam bu mag bu tedd bii président de la république son excellence Macky Sall ne ma dem fa nga taxawal ma fa taxawal ma fa pour fat pour wax jullit yi rawatina waa kër Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul wante Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul njabootam mooy diine islaam weesale na boppam tarixa Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul moo tax bés bu rëy bii bésu dellu ci yàlla la le président Macky Sall son excellence ne ma naa ñëw feddi lil ko kóllëreem kóllëre taalibe ak doom ci kër gi mais kóllëre également ah koo xamante ne kii xarit la daanaka conseil yu bari ci réew mi dana koy jukkee fii ci sa njaboot kii rawatina ci kenn ci say rak sëriñ Bass Abdou Khadre ah, nga xam ne porte-parole xalif général de mourides nekk koo xamante ne kii njëriñ lu rëy la am ci Sénégal ca dal ba ca dayo ba mais également ca xam-xam ba di ko jëriñ réew mi à travers son excellence le président Macky Sall maa ngi kooku itam maa ngi lay jox gërëmu président la république jëm ci moom euh, gërëm bu jëm ci sa njaboot gi rek ci yow la jëm di ñaan yàlla suñ borom tabaraka wa nga yàgg fi lool te wér mbàkke yow sëñ Cheikh ak say njaboot ak say rak say say tey dëkkandoo say xarit ñun ñi sax ci lañu président la république Macky Sall ci la bokk di sakku itam ñaan ci réew mi réewu Sénégal bi am Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rassoul euh, sëñ Moustapha fàttali nañu sànq tooyalaat suñu xol suñu xel dalaat ci ne suñu suñu waa ji Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rassoul kenn mënu koo am di tiit walla ngay ngay jaaxle moo tax ñëw fii ci seen ëtt. di ëttu Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul ay ngëneel la fees del mais béréb ñaanukaay la président di ñaan di sakku ñaan nga ñaanal Sénégal yow ak sa njaboot yow ak njabootu Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul ngeen ñaanal Sénégal jàmm nawetu jàmm te barkeel ànd ak jàmm wante ñaanal itam waa Sénégal xel yu dal xelu jàmm ndax kii ñuy feete tey ah wàcc liggéeyam nekk na nit koo xamante ne kii xol ba day mën nañ koo méngale ñun ci suñu niveau la suñu borom waxoon ca Muhammad sallallahu alayhi wa sallam innaka la laa xuluqin azim moom day boroom xol bu rafet la woon yal nañu yàlla taaf ci barkeem délégation bi ma fi àndal wax nañ ko à commencer par le gouverneur de de de Diourbel di sax xarit di seen xarit yéen ñëpp di seen taalibe monsieur mbay ak commandement territorial bi nekk fii ci région de Diourbel wante nekk lépp ci Sénégal ànd également ak ay conseillers ay responsable ay ministres conseillers yoo xamante ne yii ñoom ñëpp ci délégation bi la bokk nga may ma rek man nuyu samay naataangoo ay responsables politiques yi ma fi fekk te kuréelu politique yi yépp a ngi fi toog Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul moo mel noonu moo jaboote ñëpp moo jaboote ñëpp yéen ñii di njabootam yéen a jaboote ñëpp ñaan rek yàlla dugal ci xol yi ñu mel ni suñu way jur suñu sëriñ kii nga xam ne royuwaay la jikko yi gën a nekk jikko yu rafet ñu bëggante parce que d'abord ay sénégalais lañu ensuite ay jullit lañu ci ñenn ñi walla ñu gën a bari et ensuite ñu gëm yàlla lañu. bu ko defee yàlla ku ko gëm da koy doyloo te tuubaa day bërëb bu ñuy doyloo yàlla la maa ngi nuyu donc naataango yépp di jéggulu salaatu wa salaam ala seydina wa nabiyana maulana muhammad sallallahu alayhi wa sallam salaamu aleykum wa